Euh, Serigne Bara Diakhaté chef du service des ressources humaines de l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim de Touba nekk responsable politique à Thiès tey nag euh, dañu ñëw depuis semaine passée ak semaine bi nekk ci ay journée yoo xamante ni comme nit ñu la ko xamee ñun mooy ñi ànd ak euh, Bara Diakhaté di liggéey Thiès mooy fu ñu toll ñun dañuy nekk sur le terrain que moo xam ñu gis Bara wala ñàkk koo gis les gens sont sur le terrain parce que fan yile li ñu occupé woon c' était les parce que on avait pris l' ñun de soutenir la candidature du président Amadou Ba et candidature boobu alhamdulilahi rabil alamin am nañ plus de 2000 parrains yoo xam ni mënoon nañu am lu ko ëpp mais ñun ñëw décidé yam ci loolu ndax dañu jàpp ni dañu war wut parenage yoo xam ni ñi ñuy wut bu élection jotee bu ñu leen nee ñu woteel ñu moo tax ñu ngi sant yàlla ginnaaw bi ñu génnee ci parrainage itam gars continuer proximité yi continuer accompagner nit ñi aussi seen gox yi ba tay ce matin on était ci activité wu Thiès en marche ndax Thiès dafa am organisation bo xam dafa regrouper doomu Thiès yëpp Thiès en marche demb la fa suma gars yi dem ma leen di de passage leen remercier demb lañ fa dam yóbbu fa ay médicaments pour accompagner leen seen consultation bi tey dam nañu ca ñu ngi sant yàlla bu baax ndax bañ fa demee ay niti Thiès doomi Thiès lañ fa fekk ñu leen di faj bu ñu leen fajee ba pare may leen garab ñu leen ci remercier bu baax à la tête monsieur Idrissa Iraki ma koy féliciter di ko remercier ci engagement bi mu am ngir fexe cees nekk dëkk bu ñoŋ ngir fexe cees nekk dëkk boo xam ne il fait bon vivre donc li ki des tey ndax ñun dañu faral ci suñu politique mooy dam lépp loo xam ni naqar la wala bànneex la bu xew suñu ginnaaw. bu ñu ñëwee weekend dam moo xam bu dee ngénte seeti ki doon tudd bu dee jaal seeti bu dee dëj seet dem jaale ji ki nga xam ne moo toj le te yooyu itam du rafetoo nga fay dem di fa yóbbu ay micro wala caméra di rafet mooy yow nga dem fa rek seeti ni ñu jàll leen ndax politique léegi dafa ànd ak yëg ñi nga nekkal politique léegi dafa ànd ak ñi nga nekkal lépp loo xam ne ñoo nga ca nga fekk si leen ca ba ñoom yow lépp loo nekk ñu mën la ci fekk si. moo tax ku am xew ci ñu nekkal ñëpp wala ñu dëkk ci suñu gox dañu fa dem seeti leen ñu ngi waaj léegi proximité te bu ñu paree ci jaal mi ci proximité yooyu lañ jëm waxtaan ak nit ñi seeti leen ndax soxlay nit ñi mënuloo koo xam ci mbedd mi mënuloo koo xam ci meeting mënuloo koo xam ci mobilisation soxlay nit ñi boo leen fekkee seen biir kër yi nga koy xam te loolu moo tax dafa bokk ci suñu politique mooy fexe ba di fekk nit ñi pour xam seen i yitte xam seen i jafe xam seen i soxla de passage aussi je remercier les femmes parce que amna activité yu mag yi fi amone fan yi ci ginnaaw semaine passée di rassemblement yo xamné c'était des formations de femmes formation ci jigéen ñi ci eau de javel savon entre autres et ñom loolu itam dañ ci dugon dam bokku ci bu baax a baax maa leen remercier de passage ndax responsabilité mom boko yoré sey nit rek sa base ñol sey responsable sa staff ñol mëna a ci at ndax fep fépp ñu fa nek mais c'est le lieu aussi de remercier et de consolider les jeunes ndax boo amee ay ndaw ñu xalaat ni ñoom jamonoy sedd lañ jëm te zone bi dafa bari ay daara ñoom ñuy cotiser seen biir ku ci nekk mille cinq pour dem jënd ay pull jënd ay yére pour yóbbu ko ci daara yi je l'ai su comme tout le monde loolu fierté la te fuñ ci dem ba ñuy dañ ko donc là aussi c'est le lieu pour moi de remercier et de féliciter les jeunes di leen wax ni politique engagement la politique gëm-gëm la politique volonté la loolu boko xasse am rek le reste yep terrain la et suñu borom dina rek sutural waye li ëpp solo ci yooyu yëpp nag dañu nek ci logique bu mettre sur place un mouvement inshallah allah dans les jours à venir le temps que j'y échange plus profondément avec le staff avec euh, les gens avec gars yi nga xamni man ak ñom ñoo bokku liggéey bu soobee yàlla dañ ci wax ba nit ñi xam fiñ jëm ak bu ñuy dam nan lañu fay demee. kàddu yooyu laa doon dinaa ko yëkkati di gërëm waa Tambédou aussi nga xam ni yaa xibaar 221 ñoom ñoo ko yor ma leen di remercier parce que ñun ak ñoom ay partenaire lañ lépp loo xam ne ñoo ngi ci ñoom ñu ngi ci ñëw di ñu jàppale mais ñun tam lépp loo xam ni ñaa nga ca ñoom dinañu taxaw di organiser pour dem jàppale leen et j'ai échangé avec lui-même par rapport à des formation qu'il compte faire procurer ci yenn jeunes yi nga xam ne dañu jàpp ñoom dañu bëgg def sécurité wala am na ñeneen ak ñeneen ailleurs pour xool ñooñu nan la ñuy ñëwee jàpp ci dans le travail malgré mouvement bi mu am muy mag mouvement ànd defar sa gox mais di accompagner gox yi di accompagner zone yi moo xam muy Kaolack muy Dakar muy Thiès mais dañu jàpp ni Thiès war nañu mën a ànd ñun ak ñoom pour que li ñu bëgg ci gox bi muy fànn yëpp dox ñu ànd ñoom tekk seen loxo ma leen ciy remercier leen ci féliciter de passage. di ñaan peut-être képp koo xam ne gis nga seetaan nga vidéo bi wala wala euh, wala passage ci lii ñuy wax ñu mën a créer des collaboration fructueuses ak ñoom pour gën leen a ndax li ñu nekk ay ndaw ñoo ci nekk li ñu nekk ay jigéen ñoo ci nekk te jàppale leen jàppale réew mi la mais ñun en ce qui nous concerne fépp fu ñu leen mën a yóbbu yokku leen nous n'hésiterons pas à le faire pour les accompagner. dafa am bu naan une une forêt qui pousse ne fait pas de bruit boo bëggee jëm fu sori da ngay defar sa yoon léeg de communication aussi tue la communication ndax amna ay responsables yo xam c'est des leaders aux pieds d'argile dañuy wax ci kaw fo len fekk ci radio yi jàpp nit ñoo am nañ lu ne mais bo démé à la base do len to fekk man nak j'ai fait le sens contraire man bëgg dam am nit ñi ba pare do ko génn pour wax ci kaw bis bu boba lepp lo xam wax nga ko kenn du ko dindi. ñaareel ba ñu dëkk ci gox yoo xam ni dañ leen di laisser le temps en rade Sélé dañ koy bàyyi en rade moo xam muy parcelle suñu zone dañ leen di bàyyi en moo tax ñun di seeni doom màgg taxaw ni loolu bis ni ki tey jeex na fépp fu nit mën a toog laaj seeni doom mën nañ fa toog laaj et ñu fa yéene ànd ak ñoom itam laaj ngir indi sagal leen mais duñ dem ci ñoom rek dinañ ko def pour ñoom waaye daañu ko def pour Thiès gi yëpp parce que li ñu intéressé mooy Thiès am beneen xar kanam li ñu intéressé mooy Thiès nekk beneen cees boo xam ni dootul un Thiès défaitiste mais Thiès victorieux lay nekk cees boo xam ni ñi fi nekk bis bu dara jotee moo xam muy élection wala dara daañu taxaw xeex gañe bu ñu gañee dem toog fa nit ñi di laaj yooyu ñu toog fa laaj waaye dootu ñu yor cees boo xam ni ña koy yor dañuy raser les murs dañuy wër ci mbedd yi di doxantu waaye ñi koy yor nekk ñu am fulla bu waxtu laaj jotee ñu laaj mais bu waxtu liggéey sur le terrain aussi jotee ñu liggéey ndax liggéey sur te loolu alhamdulilah ñun mën nañu bëgg waaye ñi la jege wër la nekk sa saf bu ñu dëggoo te taxaw loolu moo ëpp solo laneen lu mënti doon te alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla boobaak léegi ñu ñu àndal gis nañ ni taxawaay boobu def nañ ko ndax benn lam du tàcc te activité sociale aussi nit ki boo ko lebalee te xaaroo ci dara bis boo bëggee mu fay la waaye nit ki boo ko bëggee lebal léegi ni ko danga may fay léegi ci politique bo xefé mu gedd li ngoy lebal delo la ti bu pare bu élection ko té mu voter contre yow motax ñu envisager ni nga taxone nit ñi dam di perte avec tous les moyens qu'ils avaient ñun dañ changer de paradigme c'est-à-dire de mettre en exergue la politique sociale accompagner nit ñi ci li ñu nek mo xam accompagner les jeunes dans l'emploi accompagner les femmes dans la formation et le financement accompagner mag ñi ci seen wërgu yaram ci seen taxawu seen jabot te loolu dafa naa ni boo ko defee rek allégé nga les parents allégé nga ñi nga xamante ne ñooy kër yi ndax li wóor mooy euh, dëkk bi li fi président Macky Sall def en terme d' emploi en mettant sur place les pôles emploi les maisons pôles emploi en mettant sur place trois la trois fpt euh, la DER entre autres jàpp nañ ni ndaw ñi war nañu xam yooyu ba dem wuti fa ce qu'il faut ak jigéen ñi pour mën a am njëriñ seen bopp mais amal ko. waaw waaw dinañ ko xaar incha allahu rabbi ci fan yi di ñëw. dinañu xam date bi ñu bëgg a jàpp lancement bi ndax daañu ko def parce que ku nekk terrain itam bis dina jot nga wane sa bopp wane li nga def et bis boobu soreetul ndax dañu ne ci logique boo xam ni comme j'ai l'habitude de le dire nu newuñu ci logique boo xam ni les ordres descendent du chef pour que ñu jàpp ñu def li wala ñu wax même su ma xalaatee ñoom ñu xam ne li ma xalaat baax na sax je le partage ak ñoom ba ñu valider ko. épouser ko nga doog koy mettre sur le terrain mettre ko au grand public mais loolu moom balaa élection ñëw daañu wane suñu bopp wane li ñu mën ba bu boobaa nag à partir de ce moment dinañu xam les responsabilité ñan ak ñan lañ ko jox bu ñu bëggee au soit du vingt cinq février ñu gagné au la à Thiès incha allah. Euh, diggante jàmm rek fekk euh, man damay remercier suñu borom ndax duma ci du ma wër ci benn kër responsable. ndax ñiñ naan responsable je me considère comme responsable je me considère de la même trempe que donc mënuloo am problème ak eux. ndax kiñ naan responsable vous êtes responsable yow tam ngay responsable du ngeen am problème donc moi je me considère de cette trempe là. Tout Touba politique wu ma fa j'ai un ami qui est là-bas muy Serigne Mbacké Faye di responsable politique à lépp loo xam je sais naa ko fa muy mbokk wala liggéey aussi dama koy balancer rek moom moo fa nekk di liggéeyal parti bi moom laa fay moom la ñuy jàppale